bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwata illa billahi aliyil azim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa bokki julit yi bokki taalibe yi bokki jàkkaarloog ñun ñoo ngi sant sunu borom subhanahu wa julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam feddliwaat sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim ñaanalaat Sëriñ Tuuba Cheikh Mouhamadul Muntaxa al Khalifa sunu boroom may ko fan wu gudd lool waa ndag wér yaram dolli ko kàttan ba naal yi nga xam ne naalal na ko lislaam yëpp mu àggale ko te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di jaare bokki jullit yëpp ak bokki taalibe yëpp di am mbégte ngir ñëw yëkkati ay kàddu yu jëm ci waajtaayu bis bi wala ci jëmmi bis bi nga xam ne moom la sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim woote ngir ñu sant la ko ci boromam subhanahu wa taala ak cant nag ku ne xam ne na ak may moo koy jiitu wala boog miin nañ lool ak may jiitu ak cant waaye cant goo xam ne dafa jiitu may ga neewaa nañu xam ko moo tax boo delluwaatee ci alxuraan sun borom di wax ne xalilun min ibadiya shakur ñu néew ci sama jaam yi ñoo may sant moo tax sëñ Tuubaa wax ne ataytani jamia duna salabi wali taquudu su la waxta talabi ginnaaw man lu ne ba mu ko daataaka kañaan lañu ma ko may moo tax samay cant di jiitu samay may waxlaat na it ne yow sama borom de soo ma joxee ma di la sant soo ma xañee it ma muñ te di la sant kon moom diggante jox gi ak ñàkk gi jox lépp ak cant la koy jural loolu nag moo tax cant gii mu woote muy bi mu bi mu digee ak boroomam subhaanahu wa taala na ko fas naa la yéenee liggéeyal sun boroom wan ko danger yi ne ci liggéey bi wan ko it may ya ca nekk mu nangoo mu jànkonte jafe-jafe yi ci nekk ngir jot ca may ya moo tax bi ko contrant bi biñ ko ko signélee rek moom mu ne kon am gi ma am contrant bi nga xam ne nangu yàlla nangu na ma doot am jaama mu mu yan ma ab liggéey man loolu laay sant yàlla laata résultat liggéey bi ñëw nangu gi mu wóor ko ne rek lii muy bëgg a dugg pour yàlla nangul ko ko étape bu jafe ngay dox soog cee agsi mu dox ca étape boobu ba agsi ci ba jël engagement diggam ak boromam sun borom nangul ko engagement boobu sëñ Tuubaa ci loolu lay woote ak cant moo tax mu wax ne bis bii nga xam ne ci laa demoon ci géej gi liggéeyal ci yàlla liggéey bu toll ne bi ma ko ci liggéeyal képp koo xam ne sama mbég sa mbég la soo ak te ak seetee nag ma ci sant la yàlla ak li nga xam ne nekk na ci ak cant ci ay xiiwal sun borom subhaanahu wa wax na Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ci alquran na ko wa amma bi nicmati rabbika fa addis suñ la defalatee xiwal nag teg ci ak cant kon yàlla ku bëgg ku koy sant lay doon am na sax turam woo xam ne Abdu Shakur la ko tuddee kon yàlla bëgg na lool ku koy sant Serigne Touba nag damay wax toujours ne mbooleem xeeti jaamu wooni yàlla yi mbooleem xeet yi nit di jaamoo yàlla nit jaaroon ca jaamu ca yàlla ba yàlla may ko ca martaba jaamu yooyu yëpp Sëñ Tuubaa dajale na ko gépp jaamu goo xam ne nit amoon na ca maqaama bañ xam laak maqaama mooma ba yàlla jaara ci defar sa mbir sëñ tubaa jaamu googu jaar na ca ba am maqaama moom ma def ko ak laxasaay kon ne wuti ganeen yëpp nag baatub cant nag da dafa bari ci biir xasiday sëñ tubaa bari ci biir jëfi sëñ tubaa feeñit ci biir liggéeyub sëñ bi feeñ ci biir ab liggéeyam te boo del siwaatee ci ni sëñ di sante da nga xam ne bis bii màggalug Tuubaa boo boo boo boo jàngatee boo jàngatee li nga xam ne des na ko dépensé ci màggalug Tuubaa ngir sant la yàlla sëñ Tuubaa amul benn bis ci àdduna bi benn bis ci àdduna bi bu ñuy dépensé lu toll noonu ngir jëmmi yàlla amul ci àdduna bi maanaam bañ doon seet laaj yàlla na ko ban bis moo la gënal ci bis yi danaan bisu màggalu Tuubaa ndax li li nga xam ne sunu borom dana ko ci jot muy jóge ci jaam bi di sedd xolam te du ci am wenn naqar te lépp di sant yàlla sant goo xam ne dañoo sant yàlla ngir yàlla rek amul ci àdduna ci moom nga ne ko bis yi ci àdduna bi ban bis moo la ci gënal dana la bis bi nga xam ne moom la sama jaam ya sama jaam ya nekk senegal nekk ci dëkk bu ñuy wax Touba seen njiit di Ahmadou Bamba di sama jaam bu ma gërëm bis boo ma mooy wooteel mooy bis bi ma gënal ci àdduna bis boo xam ne maanaam ñëpp àndandoo génne seen alal ngir jëmmi yàlla génne seen alal ngir jëmmi yàlla dépensé waat ko ci biir yoonu yàlla mu tudd infaax fi sabilillah te suñ borom nee na lan tanaalul birra hattaa tunfiqu mimmaa tuhibbuun ginnaaw yàlla nee na du ngeen am ci man li ngeen gën a bëgg lu dul ne da ngeen maa jox li ngeen gën a bëgg nit jëmmam ak alalam moo ko gënal ci àdduna nit ñi dañuy boole seen alal ak seen jëmm jox ko sëñ tubaa ngir lan sant le sëñ tubaa yàlla ngir sant le sëñ tubaa yàlla koo laaj looy def danaan damay sant jullit yëpp nag ba àgg na ci sax waxuma la comité murit di ko def waaye buñ ci àggatee Sénégal gépp àndandoo jullit yi ak chrétien yi tiijaan yi ak murid yi ak xaadir yi ak laayeen yi ñëpp àndandoo ci benn bis boo xam ne ñoom ñëpp dañuy àndi sant la yàlla sëñ tubaa ndax amul benn jullit bu gàntal sañ tubaa ci bisam bii di ko sant la yàlla amul benn chrétien bu gàntal sëñ ci bisam bii di ko ci sant la kon sëñ tubaa moo wut bis boo xam ne mooy rek régler solution adduna bi sëñ tubaa rek moo ko am moom moomu nag laata muy am bis boobu fi mu jaar ak limu daj Euh, damay nettali benn rek bu am solo mooy bi mu jëlee engagement ci diggam ak boromam ngir liggéeyal ko ba yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko waxam joojee na ko engagement bii nga jël na nga xam ne li ngay doon doon sama xarit ak li ma lay bëgg-bëgg benn ndimbal rek laa ci am sama digg yow mooy luy bëgg ñëw danaa la nangam a ngi bëgg ñëw pour mu bañ laa bett. waaye boo xasee ñëwee nag amat du ma ci tinu yàlla ndax bu ma ko defee yàqal la sa yëf te it yow it boo ko engagé ba noppi tinuwaat ci yàlla pour mu génne la ci sa yëf yàqu kon xamal la ko ba nga man koo waajal ba bu mu ñëwee mu bañ laa bett rek laa ci mën a wax moo tax sëñ Tuubaa aw fit ku ko toll ne moom amut waaye jom ku am jom ju toll ne jim amit amut ngor ak jom ak fit sëñ Tuubaa ko moo ko barale ndax nattu bi lu mu rëy rëy rëy liñ koy bëgg a teg lu mu diis diis diis balaa ñëw yonent bi da ko ne ah pareel nattoo ngi ñëw bu toll nangam bu la bett nga xam ne du ko bett muy nag loolu kuñ ko wax ci saw fit jugut diggante biñ la wax ne la ñi ngi la bëgg a tàmbal ci tàmbal ci ak kàmb kàmb gi ñu lay bëgg a tàmbal nag na nga xam ne nii la mel nii la mel nii la mel danse bee ci nekk fit ne sàngam mën na la caa fekk jamono jooju ñu la ko waxee bu la fekkee nga yor sa xalima di taalif genn xasida mënoo koo xàmmee ak biñ na lee suñ borom wàcce na ay xéewal mu jëm si ci yow te dara mënu koo dog mënoo xàmmee ñaari ñaari xasida yooyu ñaari bayit yooyu doo ko mën a xàmmee ci fees dell ak ragal yàlla fees dell ak wakirlu ci yàlla fees dell ak sant yàlla borom bi subhanahu wa taala waaye fees dell ak xitma boo xamante ni bi ànd dellu ginnaaw bi nattu bi dal ci kaw sëñ Tuubaa ak bi xéewal yi ñëw ci moom ñoo yam mënoo leen a xàmmee kàmb googu ma lay wax di ko junju nettali na ci làmmiñu boppam wax ne loolu ñuy wax ak kàmb ab teen lañ ma gasaloon ab teen boo xam ne dañ ko wutal ay ndomba teen bi dafa am ay ndomba ndomba yooyu mu am ba ni mu ñëwee ci bitti nag ndomba gune xamal ne def nañ fa ay fiir yoo xam ne benn nga jaar fa mu xotti sa yére wala nga jaar fa mu xotti saw yaram sëriñ bi nee na teen boobu dañ ko wutal am lëm moo xam ne lëm ma dañ koo gas ba ca biti ñu wutal ko ab buntu tëj ko ñoom buñ bëggee ñëw ci teen ba ca lëm mooma la ñuy jaar ba agsi ci ndëttul teen bi waaye yow min ci tàbbal nag ca kaw ngay jóge rek tàbbi ci suuf teen boobu day lor nañ ca ñu baree baree baree bare sëriñ bi nee na bi ñu defaree seen teen boobu ba mar maral ko ba fab der ba teg ci kaw ma ñëw ñu ne ma soo bëggee jaamu yàlla ab dera nga ne bu mën a jaamu yàlla nee na bi ma jógee dem dox wuti der ba damaa dem ba mu yàgg sama njortu ñaaw ci tubaab yi ma taxaw waaye tubaab bi daf ma daf maa ñax ak pas-pas ana lu ko tubaab bi ñaxee nee na bi ma nee tekk taxaw daf ma ne xanaa da nga wóotu sa yàlla ji baat boobu nag moo puus sëñ tubaab doole aw fi aw def rek ànd ak moom dem ci kaw der bi ndax lim ko wax ne ko da ngaa sa yàlla ji non da ko ñax nee bi may agsi ci der bi waaxu mi ma agsee ci der bi doole doole la der bi rës nee na may romb nag fiir yooyu nga xam ne moo nekkoon ci pind teen bi ci ndomb yooyu ci defoon fiir gu ma àgg rek xotti na sama yére baa ma xotti sama sama sama yaram sëriñ bi nee na ba ma daanu ci ndëttul teen bi ndëttuli nee na bi ma ci daanoo day fu ma deret jógewut xaw ko kaw ak suuf yaram wépp di sab-sabi deret ji sotteeku ba boo ko doon taatan man nga caa am paan paan gu fees yére yëpp nee na ci ci fiir yooyu la des sëriñ bi nee na foofu day dem naa bay bëgg a wax tubaab bi bay bëgg a fekk tubaab yi seenu bëgg mooy ne sun borom jëlal bakkan bi ndax aw mitiit ak ay tartar waaye nee na awma lu dul rek ne am lu jàpp ci sama ñaari mbagg yi lu dëgër na ma caq na ma wurri ca biti na ma demal ci sab liggéey bu la ko dara yàqal nee na bi ma gëstoo de maryam soxna Mariama Bousso sama jur laa gis nga xam ne kon jigéen ñi war nañoo gën a góorgóorlu jom jooju mooy topp sëñ Tuubaa moom sëñ Tuubaa nettali na ma jëlee ko ci làmmiñu sëriñ Omar Bousso xalifab sëñ Mbàkke Bousso maa ngi ñaan mu yàgg fi lool te ànd ko wér nee na bi mu toll ci ñeenti at juróomi at dafa dafa dafa gën di jaamu yàlla ni mu ko daan defee da daan def bu nuyoo soxna Asawaalo maamam su noppee nag day dem beru ji boobu soxna Asawaalo ngi jàngale nee na fi mu génne beru di jaamu yàlla soxna Asawaalo kaala gi yor sàmba sembeli mbicc mii féeteeg sëñ Tuubaa dafa ñëw ba tolloog moom fekk muy julli mu jàpp ci mbicc mi dóor ku ko ñetti yoon na ko ee eh, lii nga bëgg lii ngay def du la ko may lii nga nekk jaamu yàlla ak jigéen la nee na sëriñ bi sëlmal na ko jàkk mu ne ko xam nga loola koy may nee na mu xool ko mu ne ko wettiw ñàq xet ma rek la koy may waaye jullee woor du la ko may jom jooju nag la sëñ Tuubaa màggaale màggaale xam ne li mu bëgg xaw a dee ko koy may moo tax yan banoon yan ban yanoon waliyu ya ak labdaal ya te attanuun ko moo ko fab raw gaaya sëñ Moussa Ka nee na dëngëñ nga xam ne kenn yenu la ko yaa ko téeñul sa bopp dëngëñ di wëy te tawatul balaaya nee na tawatut coono yiñ koy teg métti métti yiñ koy teg tartar yi ñu koy jaarale nee na mosu cee tawat benn boroomam sóoratul Ahwaani la am cee aaya maanaam juróom-ñaar fukki nattu ak nangam ak nangam yooyu ñu ñuy lim te natt bu ñëw gën a métti nattoom yooyu la wéyaale natt yooyu la wéyaale ba keroog bañ koy sànni ci île de wiir natt yooyu la wéyaale keroog ba muy nekk ca Mayomba nattoom yooyu la wéyaale ba keroog bañ koy taxawal ca di ko fetal ca Port Santi ba muy waxal boppam wahabalil wahaabu fi sulaada maa yuxjilul xasrata wa salaada natt yooyu la wéyaale ba nim ñibbisee senegal ba jëlaat ko yóbbu gànnaar mu gën a métti gën a tar ba niñ ko yóbboo jolof ñuy dong ñuy dajale dongo yi di leen dóor di nangu seen alal sëriñ bi di leen jàngaloo alquran di leen gëmloo yàlla di leen sikkarloo di leen sàkketloo di leen fetañloo di leen liggéeyloo di jox jaami yàlla yi taalibe bu yar mag ñooñ ñëpp koo ci gis xaafisul quraan lay doon doon xaalim dib xaabit man alquraan borom xam-xam bu maandu dib jaamu yàlla bu koy jaamu boole ko dib liggéeykat ca lépp loo liggéey na nga ko joxaat yàlla joxaat joxaat ko yàlla noonu la leen sëñ Tuubaa toqi ba yàlla dogal nag ab nattoom yëpp jeex mu woote nag bisub sant yàlla bis bi nag dama ciy wax toujours ne lu ci sëñ tubaa wax rek waras na koo gëm bu njëkk sëriñ bi aw béy la ko tàmbalee woon ñu jox ko ko soxna ummi si jox ko ko addiya teg ko ci loxoy sëñ Moulay Bousso sëñ tubaa soppi lu bay woowa am xar xarum sëñ Tuubaa moomee mu ci rendi woon ay waay mbokk yi diggante cent 1922 wala 1921 moo xam sax muy cent vingt 1925 waaye 1900 la ak deux mille vingt et un bu fekkee ne mille cent vingt ak deux mille vingt et yaakaar naa ne téeméeri at képp lay soog am su fekkee ne mille neuf cent vingt la ak deux mille vingt et un téeméeri at yi manqué na sëñ bi xoolal téeméeri at su fekkoon ne at mu ne dañ ne dooli nañ ci téeméeri gàtt junniy gàtt la ñuy soog a toll waaye bokk yi xool leen màggalu Tuubaa ñaata junniy nag ñaata junni ay millions waxuma ay junni ndax nit ñi sax ñi ngi jënd ay junni. ñu ngi jënd ay junni waaye ñaata millions yi nag moo ciy dee nag yaa ngay jógee Sénégal nag yi nekk Sénégal yëpp danañ ko dalee ya nekk Fuuta ya nekk Bawal ya nekk Jolof ya nekk Matam ya nekk Tamba ya nekk Kidira yëpp danañ daje xeeti façon nag yi am Sénégal yëpp danañ daje Touba sëñ Touba ne yii ñu ne ko kon xeeti nag ya am Mali nañ la ko yët mu ne doyuma ñu ne ko xeeti nag ya am gànnaar nañ la ko yët mu ne doyuma ñu ne ko kon la yët façon gëléem yi am ci réew mi ñu yët ko mu ne doyuma ñu ne ko kon mbooleem luy xeeti ginaar nañ la ko yët mu ne doyuma léegi xeeti xar yi mu ne doyuma mbooleem luy njanaaw lu dagan a lu ne boo ñëwee Touba dang ko fi fekk ak façon ba nga ko fi fekk sëñ bi lii dee ci ay bakkan lii dee ci ay bakkan ci màggalu Touba ñu ne bakkan yi lu ngeen ci jublu ñu ne sant sañ sëñ yàlla bu yàlla nanguwut gi cant genn cant gu muy nangooti amut bu yàlla nanguwut cant gi amul genn cant gu muy nangu nangami millions yi bakkan yuy faatu te dara wëralu ko lu weesu sant la yàlla sëñ yëmut ci loolu mbooleem lu nit di jaay lu nit lambale di ko jaay lu nit gën a fonk di ko jaay danga ko andi Touba jaay ci jaay ci fukki fani Touba loo xam ne mënoo koo jaay ci yeneen ñaari weer ci mëneen réew mu mën a doon commerçant bu mën a doon marchandise ma nga andi Touba di ko fa jaay li ngay jaay ci fukki fani Touba mënoo ko jaay ci yeneen yaari weer ci ak réew moo mën a nekk loolu àdduna nangul na ko sëñ Tuubaa kon bu may wax toujours ne wax ne sëñ Tuubaa mooy solution ay bokki jullit di bokki taalibe yi nangul leen ma li may bëgg a wax ne sëñ Tuubaa mooy solution ñoo ngi santaat nag ñëpp di ñaan yàlla yal na yàlla wàcc jàmm ci réew mi yal yàlla nangu jaamu yàlla ak jullit yëpp yal na yàlla tabbal àjjana bépp jaamam bu mu bind yal na yàlla jéggal bépp jaamam bu ko may yal na yàlla saxal ci liggéeyal sëñ Tuubaa sunug dund ak sunug faatu sunu yëngatu ak dal lépp yal nay seen bokk taalibe Fallou Galass Syll moo àndoon ak yéen jàkkaarloo woon ak sëriñ Cheikh Bey ci wàllu machine bi ñi ngi ñaan yàlla mu àggale nawet bi ci jàmm ni ko sëñ Mountakha ñaane jële fi mbas mi ci jàmm ko sëñ Mountakha ñaane def xiiwal nag bu sax dakk ci réewum senegal boole xol yëpp ñu nekk benn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.